encore de de dialoguer dafa yeggul woon euh, dafa am lu bees lu ci yolleeku wala satisfaction moo ci amul. waaw non xam nga boobu euh, mënu mënuma la wax li tax euh, ci njeexteel li mu jógul sotti. am bu ma juumul ba tey nekk na discorde ci ñi nga xam ne ñooy acteurs politiques yi bi ci ëpp solo mooy organisation élection yi kilifa gi nga xam ne moom moo ko moom moo ko war a amal. xam nga man dama jàpp ne sama wàllu bopp élection. Euh, baax na ñu waxtaane mais li am solo du ki koy organiser li am solo mooy waaw baax loolu am na ci solo euh, li am solo mooy anam yi ñu koy defee ak ñi ciy bokk mhm. yan kattan ak kàddu la ñuy am ci élection yi xam nga tey jii may wax ba tey du ma wax li am PAM tey ba bésu voté ba mais bésu voté suñ ko seetloo ci bés bi coow du bëri lépp dañ koy déggoo mu des lu ñuy waxtaane bésu tey ba bésu élection loolu dañ koy waxtaane ala kulli aal lu ñuy waxtaane la loolu pour ñu àgg ci suñ ci juboo rek jeex na maintenant kii organisé damay wax su ma ko waxee ñu bari dañ may dañuy xool di taxaw de cee wax nga dëgg mais Antoine Diome mi ñu ko mi ñu ko séq mi ñu ko dénk mais moom bokkul ci parti Antoine Diome magistrat la procureur la kenn mënul wax ne ci parti la bokk. sauf que l'opposition ne lui confiance. waaw loolu dossier yi nga xam ne. xam nga nekkoon na ci loxoom bi muy nekk xëy na. magistrat euh, waaw xam nga nag xam nga man man ak moom dama nekk avocat mu nekk procureur. Mhm. may défendre kii maa ngi moom ñu contranté. c'est loolu kenn ku ci nekk ci sa liggéey la xam nga tey damay nekk avocat. dañu nekk sama moroomu avocat ñu jàppante ba mu saf sàpp ëllëg maag moom ñoom ñu bokk nekk. Mhm. ce n'est pas parce que parce que procureur mooy ki nga xam ne ne ki mooy avocat réew mi ñoom moom mooy topp paate tribunal ku ñu topp rek procureur moo lay topp li ci ëpp bokk. Mhm. kon moom day toppaate loolu ab liggéey la liggéeyu procureur yépp la loolu euh, seetu ci dara du liggéeyam waaye moom bokkul ci parti mhm. mais loolu amul solo ku ñu wóolu ko. ak ñu bañ ko wóolu amu ci solo xam nga li solo mooy charte yi ñuy teg yi est-ce que charte yooyu le dina mën a indi jalgati. maa ngi la naan sànq xëy na am na lu ci yokk ci diggante bi euh, parce que présidentielle yi ñu jëm am na point yoo xam ne indi woon na jafe-jafe ci yi passé te ba tey réglé guñ ko bokk na ci parrainage bi mais lu ci dolleeku leneen mooy xëy na ñi war a bokk parce que foofu tamit moo gën a inquiété euh, tey ji ñëw acteurs yi nga xam ne ñoo war a euh, soobu ci boobu mbir. nga Euh, man du ma ci sooy xam nga ma ci sooy. Mhm. damay wax sama li nga xaman mooy euh, sama bëgg-bëgg ndax yàlla moo ma defal ma nekkoon avocat Karim Wade. Mhm. nekkoon avocat Khalifa Sall. sama waxu démb mooy sama waxu tey su doon man li ma bëgg rek la sama sañ-sañu bopp mooy ñoom ñu bokk waaye mel na ni yoon moo leen tënk dañu dem conseil constitutionnel fañ fa bërëbu àttukaay bi gën a rëy Sénégal. attekat yi ne ñoom mënuñu bokk kon tey suñu bëggee bokk dañ koy waxtaanee. ñoom jàpp nañu cette situation évolué en waaw ba tey xam nga loolu aussi man mënuma ci sori. ndax waa yoon déedéet ah, ah, dama lay wax xam nga ak acteur politique nitu yoon laa mais xam nga aussi affaire yoon. Mm-hmm. dama di avocat nekkoon seen avocat du ma fi toog tey di xarab yoon. Mm-hmm. naan yoon moo war na def li war na def la ma ca doon wax. ak la ma ci doon liggéey wax naa ko ba pare xeex naa pour ñu bokk waaye ba ñu demee yoon dafa na duñu ñu bokk ñun nag ci suñu gis-gis ñun avocat su bërëb ab attekaay bi gën a kawewu décidé wax ba pare loolu mu wax wax jeex na loolu luy dëgg soo ci àndee mooy dëgg soo ci àndul mooy dëgg mhm. donc lañu ñu loolu lañu jàpp ne mooy dëgg léegi su dee nag da ngay jël risque demaat foofu la ñu ne loolu ñu atte woon lañuy ñuy biral wala boog dañu bëgg ñu déggoo mën a waxtaan ba nga xam ne bii dinañu soppi yoon ba ñu may ñëpp jàll. parce que le président en a fait allusion jour bi muy wax ak euh, bi muy invité acteurs politiques yi il a parlé de Karim wax ne que moom bëgg-bëggam mooy que ñu amalaat yëf yi loolu dañ koy waxtaanee c'est ce qu'il a qu'il a dit pour Khalifa Sall aussi amnistie bi nee na jàpp na ne Khalifa il est attentif euh, ci loolu nga xam ne moom moom wax na ko donc pour ñett ñooñu na. déggoo dina war a mën a am mais y'a à côté Ousmane Sonko ak son camp ñoom seen condition mooy que ne le président avant d'appeler au dialogue mu signifier carrément que ne élection moom du ci bokk. xam nga xam nga yooyu man mënuma taxaw te dama bëgg waxtaan waaye ki may waxtaanal lii lay wax xam nga balaa nga naan naam ne fa damay jox benn exemple euh, euh, jël damay jël exemple Ousmane Sonko man su doon sama sago rek ñëppay bokk du ñu bàyyi kenn. waaye moom euh, dafa nekk ci yoon yoon mën na ko tënk tey jii su ñu demee yoon tënk ko lu ñuy wax xam nga loolu aussi lépp ma jàpp ne mënuloo taxaw euh, euh, di wax ne balaa may waxtaan li mu bëgg laay am loolu dootul waxtaan la ko olof yi di waxee kooku waxi waxi tono la wala waxi tànn su dee dañu bëgg waxtaan lu ñuy waxtaanee dañuy toog ñu wax wa ilaa ci biir waxtaan bi dinañu déggoo wa ilaa duñu déggoo mm-hmm. waaye kaay ñu waxtaan bëgg naa waxtaan waaye yow mi may waxtaanal balaa may dem fede li ma bëgg ci waxtaan wi am loolu loolu mooy am loolu soo ko defee mooy bëgguma waxtaan